l'homme fort ak mbay guy gi mbay rek rek sama gaay dañoo mën a corriger dara du romb moo tax ndaanaan yaa ngi sama ginnaaw raay bi boo ko waatee ñu tegaat la si. kenn gënu ah. ci réew mi. mais yéen a ma formé. tambulaan kenn du yow. si même réew. yaatal la ak baax. laabir li naan ku mën soxor ku mën siis hop hop mbay mbay rëg-rëg a ngoog ah daa changé tur lam foor la tudd lam foor mbay rëg-rëg mbay rëg-rëg moo yor njëmb lu xong lii moom de hop hop hop mais booy bi njëmbam oh, yaa ngi bëree booy bu mën a bëree nag waaw waaw muy lam mi ngi dëkk Baal nekk école Papa tey bu ma juumul tey combat bu neex war na fi am bale passé tuddoon na fi ñu naan ko mbay warax tey l'homme de fort la teg rek l'homme de fort l'homme ak mbay yëkkini mbay yëkkini moo yor ngemb lu xonq mbay rëg rëg mbay rëg rëg moo ñu woon ginnaaw moo yor ngemb lu xonq li moo ñu woon ngemb lu moo ñu woon kanam arbitre ngi wax règlement yi arbitre soufflé na ndeysaan non mba Lom Fort waane na de Lom Fort mi mbaru mboot la de Lom Fort a ngi lew toog moom Lom Fort a ngi lew toog moom Lom Fort moytul mbay mbay rëg rëg mbay Lom Fort moytul mbay rëg rëg Lom Fort moytul mbay Lom Fort ndeysaan Lom Fort xanaa xamoo ko bëre kat la Lom Fort moytul mbay rëg rëg Lom mooy moytul mbay rëg rëg ndeysaan bëre bi newoon naa la lambi amateur la lamb yëpp a ngi neex ndeysaan ndeysaan moytul fi jaar daa mën a bëree kooku mooy l'homme fort l'homme moytu ko defal ndànk l'homme fort l'homme fort jàppal ko waaw waaw boo jàppul da lay mbër bala nga koo dóor da na moytu droite ba la jàpp non mënu ko daan si loolu mbay rëg rëg ndaanaan la de mais kii mbëru mbapat la de waa ji ëpp na ko mais dàqu koo jom ngor fit waaw waaw waaw waaw ñaari xale yaa ngi xeex ñu ngi bëree ñi ngi xeex ñi ngi bëree ndeysaan la oh. Dakar. pop pop pop pop pop. lay ndeysaan ma jël may xool nit Papa Kane. lay ndeysaan ay ndaanaan yàgg na maa fee. lay mu ngi doon de. may mën a finoo di nuyu Pape Thiam. lay Pape Thiam ñoo du baax a ak a fee gëj. donc fort ki ngay bëreel nga xamul woon. ngay encouragé. non may may rek rek may bëree nga xamul ay may rek rek tamit daanaan la may rek rek daanaan nga ñu ko bëri dafa sonn mais mu doon daan ka dee voilà daa daa daa daa daa daa mu doon daan ngembul yi daa daa ko mën rek saan taw ak moom fii la ko lay ndeysaan Fort, le fort. Le fort. Voilà, il est fort. waaw liggéey daal lu mu doon. waaw sant yàlla rek dañoo gis yéen ñaar mayeen jiw leen dara may ci daal. waaw waaw waaw mooy yoon. gars yi mënaguñ maa xam. ay jëf bële bële amul blessé doon faj. ay jëf comprendre nga. est-ce que man maa déggoon nan nga ko daane yow. noo ko daane. loolu taw day sow. loolu man man maa ngi lay sow day sow. ma xam ne fu mu tàngee rek may moom. doo dugg di doo ko ci biir kër bu ko waral mu doon tërëf ñëw jàpp ko jaasi ma mu jaaxle ma doo génn doo ko doon fuure ci biir laa ko ci génn waaw dara rek tuur ko. te kër gi mbàkk yi xalaat ko. waaw mooy yow kër gi xam nga fu mu la mën a yóbbu. fu mu la yóbbu waaw boo yaa ngi si kanam parce que Serigne Touba may kenn dara. waaw mu doon lu ko tudd. parce que amul tax. yow da ngaa daan jël bu amul tax amul tax ñoo waroon ñoo waroon fekkante bu ñu koy bàyyi. lan moo doon ñu bàyyi. waaw parce que dama am tardement bu ndaw ak gàllankoor bu ndaw di ko sant yàlla suñu borom gërëm ñu ngi àndal nañu bu bëggee baax a baax gërëm ma seen kii dama koy doon waaye gërëm am lambo nag sama kos la ak salaat bi a lu métti la may teg moo koy jàmm daa wala garaaw bi xaw ma seen fay mais dañu dañu tourné la boor incha allah mais booy bi nga jàppante ne yow lan ngay mais waaw mbër la bu ko neexee yàlla mbër la am na doole billaay wala benn foofu amul dafa jàpp ne man jàppoon ni moo la mag dafa jàppoon ne moom moo doole te bàyyi seen interview yi mu naan ay man ñu may daan ku ma si gën a ndaw moo tax sama ko may jë woo na ma trop pour jël si ma ma samay wax waaw bu ma see wax jëf daal nga bëggoon dama bëggoon jëf gars yi xamaat ne naa ndax ñu bëri billaahi wallaahi taala dama leen dama leen daw ay combat yi sama xaalis ma liggéey billaahi wallaahi taala laa laa jël ci combat bi loolu la mais sant yàlla ñëpp ñëw dàq ma